ngeen ko waxee artiste comédienne bi xam ngeen ko muy Ami kole macha allah tey moom la ñuy takk ñuy ñaan sëy bi barkeel comme ni ñu ko waxee woon waaye doomu ndeyam ngeen taxawal Naar Diop macha allah gis ngeen ko mariage am ni Ami taxawee. tey ñuy takk sa doomu ndey sa xarit Ami. waa gis nga faaw ñu teewlu mënut a ñàkk faaw mu am. dafa nekk sama xarit nekk sama sœur. nekk sama complice mu nekk nit ku baax. donc bés bi dañ ko koy ñaanal mu sëy ba dee te xam naa day sëy ba dee Ami dafa bëgg nit mën góor. te yaakaar naa dina sëy bi dana ami koole borom xol bu baax la lu Mansour wax léegi rek ku ñëw di artiste amoon foo dal mu fat la ci këram kon loolu doy na seede ami ko lañ koy ñaanal gudd fan ak ak wér la sëyam bi mu sëy ko ba yàlla may ko si ay njaboot ci barke si barke laa ilaaha ndax mérito na ko koo dafa nekk ku baax sonn ci ñëpp kon ñun bu xew lee dem ba tey ñun nag moom dañuy ñaan yàlla ba saa suñu soxlaa su ne rek ñu teew ndax daf ko mérito ci ñun. diggante yéen ñaar ndax gis nañ ne macha allah bari ngeen artistes yi mais yéen ñaar ay ay xarit ngeen ay waa Ami dafa nekk nit ku baax comme ni ma lay wax rek yéen a ñëpp jàmm. yéen a donc Ami dañ koy ñaanal gudd fan dafa nekk nit ku baax nit ku serviable nit ku yëg nit kon duñ koy ñaanal lu dul bésam bii bu nekk bés bu jëwul sa kaw. yaa jëkkëram bëgg na ko yéene na ko teral na ko. te daf ko mérito mu nekk nit ku baax kon nag ñu koy ñaanal jàmm bu baax a baax ci biir sa yëpp. eh xam nga lu ma la loolu sama vie privée du waxu fii. ah ana mi ngi fi. mi ngi fi. ah li may dégg amul. lan ngay dégg noonu. waaw léegi man bu ma gisee keneen ma ma dañuy sëy. waaw tant que lettre jeexu rek. ñoo ngi sey waa xam nga sëy am na tas dagan na waaw léegi nag lu yàlla tudd rek dafa waroon a am rek sant yàlla wax kat sëy bi daa gaaw de même pas deux xëy na dafa nii la waroon demee rek mais sant yàlla sant yàlla waaw di ñaan beneen borom kër bu baax bu gën suñu bu ñu àttan yërëm ñu sama jëkkër dafa nekkoon ku baax mais xam nga seytaan dafa bari doole xam nga moo ngi noonu dañuy ñaan yàlla rek keneen ku ñëw Diouf uh-huh. mm-hmm. nga ne waaw waaw waaw waaw comme ni Sénégalais yi ni ñu leen di gise bu ngeen tasee maanaam xam nga célébrité moom nit la comme ñeneen ñi seeka tas ak ñëpp waaye yéen comme ni ngeen di exposé seen mariage yi ak ni muy gaawee day doy waar waaw xam nga ñun exposé wu suñu mariage c'est juste dañu nekk ni nit public nekk ay célébrité nga woote nga ñàkk woote ñu si dañuy teew parce que loolu la ñu woote ndax loolu mooy suñu ñu on est des porteuses de voix dañuy yeete ñun nag ay nit rek la ñu sëy moo ñu tax a ndax nit ki la jox warugar nga jël xew te yaakaar naa ko bëggul sëy du ko def comprendre ko donc sëy dafa am tas dafa am xëy na yàlla fii la ko jaarale woon ñu ñaan yàlla beneen bi incha allah. xale yi door a ñëw ci milieu loo leen di ko. xale yi fulla ak fayda ndax milieu yëpp a yam mi milieu théâtral bi milieu mannequinat bi liggéey yëpp ñoo yem fulla ak fayda rek la laaj bis boo ko amee rek da nga yem ci kanam xamal sa bopp xam fi nga jóge xam yow yaay kat. tool nii bu keneen ñëwee nga dem. waaw loolu la ñuy ñaan ay jigéen lañ te dañ bëgg sëy ah? waa ku ñëw ñu sëy ah loo bëgg wala ñu delloo avance. Ah. non non sëy yu ñu ay jigéen lañu ay jéeg lañu duñ bëgg sëy. Ah, <laughs> kontaan na. maa la gën a kontaan merci beaucoup.